fi ñëwoon teew si fi ci ndigalu Serigne Djili Mbacke mi nga xamante ne mooy coordonnateur APR Darou Mokhti ngir fekk si suñu ay responsable yoo xamante ne ñoom li leen ñor mooy développement Serigne bi nag doon leen jàppale ci wàllu xeeti formation yi nga xamante ne jigéen da koy aajowoo ngir ñu mën a demal seen bopp ndax président de la république Macky Sall bi ñuy jàppale li mu wootee la ca jiitu mooy autonomisation des femmes maanaam jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi dañ leen a war a ñu moom seen bopp. moom seen bopp gi nag mooy ñu fexe ba ñoom ay formation am qualification boo xamante ne dinañ leen permettre boo liggéey ñu mën a demal seen bopp ndax seetlu nañu ne ay xeetu financement bu nekk judd na ci réew mi président structure bu nekk teg na ko waaye dafa mel ne bu ñëw rek day am ci yoo nga xamante ni daanaka ñoom um, yëf yi du am mucc li ko waral nag mooy jigéen ñi dañu leen jël xaalis bi rek joxleen ko noonu ñu dem voilà boo leen ko joxee ñu dem nag jigéen ku ne xam ne dafa bëri ay jafe daanaka kër yi boo xoolee jigéen ñoo ko yore donc xaalis boobu xam dañ leen koo joxe dañ koy jaawale ak poos bi nga xamante ni mooy poosu njëlli léegi nag bu fekkente ni lii ñu def tey jii ànd kook Serigne Djily Mbacké ak waa sunu koom yaatu na mi day tax boo lëggee jigéen boo jël jox ko financement dina mën a xam muy teg tànkam ndax soxna Maguette mi fi mu ne ak soxna Astou ñoom ñoo ñu fi nekkal fi seen bopp demal seen waaye ñu ngi gunge yeneen jigéen ñoo xamante ne ñu ngi dimbali seen bopp ñoom it di demal seen bopp te Serigne Djily mi nga xamante ne moom la ñu àndal di politique bokk ak moom APR politique boobu la woote mooy politique bu ñu koy def ñun waa Darou Mouhty tax ñuy politique donc ku nekk ci ab dëkk rek ci réew mi da ngay fexe ba sa dëkk ba nga nekk ñopp bu boobaa Sénégal dootu am benn benn benn jafe-jafe loolu daal tey moo waraloon ñu ñëw fi tey euh, assister cérémonie de remise de diplôme parce que ñoom bi ñu pare dañ leen jox benn bat kayit wuy wane ni def nañ formation bi boo liggéey ñoom it mën nañoo def démultiplication fexe ba formation bi ñu leen jox ñu yaatal ko ba yeneen jigéen ñu dëkk ci Daaru Muxti ñoom it euh, di ko def benn bi ci topp nag mooy ñëw fi féliciter leen encourager leen parce que ñoom du lu ñu ànd ak ñun di yëngatu ci politique mais ñoom li leen ñor mooy développement te formation bi sëriñ bi da cee préciser keroog lu am solo structure bi koy def a parti politique waaye moom waxul ne ñi nga xamante ñoo ànd ak moom politiquement rek ñoom lay appuyer ñi muy jàppale mooy képp kuy jigéen te dëkk ci dëkk bi te développement dëkk bi ñor la moom ndimbalam war naa ci parce que moom Cheikh Ibrahima Faty mooy maamam te wax dëgg yàlla ñi bàyyi woon seen dëkk ñëpp ñëw Daaru Muxti maamam lañ fekk si woon donc li maam daan demoon ku daan ñëw ci dëkk bi da lay wutal ab tool wutal la foo féete wutal la kër nga dëgër dëkk fa loolu la war a te tey wax dëgg yàlla loolu la donn ci way juróom yi nga xamante ne tey ji mooy chef de village bi vraiment tey ñu koy defee noonu lañ ko yaataloon fu nekk ñuy wax ne lii nit sëriñ defoon na ko ay yeneen yeneen dëkk lu mel ne Arafa ak yeneen dëkk ci xeetu formation bu nekk fi mu nga xamante ñun ñoo ànd ak ñun di politique ñu ci bare bari ku ci nekk daanaka produit yi nga xamante jigéen da koy soxla ci biir këram ñoom mën nañ koo defaral seen bopp te loolu wax dëgg yàlla mooy dimbali nit dimbali nit euh, jàngal nit di ko may xaalis ak jour jàngal ko nu ñuy nu ñuy nappe moo ko gën ndax boo ko jàng ah, a demal boppam nappal boppam jaayal boppam am ci am ci njëriñ donc tey moo tax ñu def délégation ci turu Serigne Djily Mbacke bëggoon na ñëw nag moom waaye ku ne xam ne ne fi mu toll nii dafa tënku mooy fexe ba jeunes yi ak jigéen ñi di man a demal seen bopp nit ñi suñu amee lu ñuy mën a demale seen bopp rek ñu soxlaal nguur dara te politique foog naa ne foofu lañ ko war a accès doomu aadama warul taxaw chaque jour di wax naan lan la ma sama réew war a defal li nga war a wax mooy li ma mën a defal sama réew te sëñ ji muy def ni tey soxna Maguette jigéen yi mu yor ay GIE de 25 personne ku ci nekk tey ji mën ngaa demal sa bopp ñooñu buñ demee bis luñu am buñ buñ ci defalul keneen sax mën nañ ci defal seen bopp donc ñu ngi profité di wax le président de la république nekk ki mu fi am jaadu nag mu dooleel ko formation yu baax la ndax sëñ ji du formation bii rek la ñu mus a defal ndax defaral ñu formation céréale defaral nañu formation boo xam tamit ji e la ah, sero ji e, yoo xamante ne fi mu toll mën nañ ko defar di ko garder at defar nañ formation céréale ay cere ay sànqal ak ay araw yooyu danga koy denc moom dina diir at du yàqu loolu ñu njëkk a defal ci formation wëlbatiku waa defaral ñu formation saabu bii nii formation saabu bi sa am na saabu tiir am na saabu karité am na saabu saab-saab uh, am na saabu karité am na olive am na Nescafé bari na daal ay façon saabu yu mu am am na tamit saabu boo xam ne fóotukaay la te saabu yëpp moom liñ koy li nga xamante ne moom lañ koy menacé di ko defar ci suñu réew mi la ne amul lenn loo xamante ne bi luñ ciy jëg ak leneen la xam nga am na formation yoo xamante ne dañ koy defar di dem di jënd saabu di kaat di ko toggaat def saabu bii saabu nag li nga xamante moo koy composé yëpp ci suñ dëkk bi la nekk ci meññetu dëkk bi la moom la ñuy menacé di ko di di ko def baax na ci peau noire baax na ci peau blanc peau bu mu ci mën a doon soo ko sangoo tubaarkàlla macha allah bu dee ko ñuul bu ko sangoo macha allah day defar teem baax na ci ndoxum siti baax na ci yëpp

suñu xaalis lay doon boo xam ne ñun duñ ko dénkaane suñ ko dénkaane dootuñu soxla daray banque moo ñu lu kees bi nga xamante ne ci lañ koy def moo ñuy wan ni nga xamante ne noonu la ñuy liggéey tubaarkaala maasàllaa daal soxlaatuñ daray banque